na daal di def euh, doxantu ndugg fi nga xamante ne rek mooy marché Sandaga marché Sandaga nag bâtiment bu mag la woon ñu ngi ko tabax ci 1935 ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon jaay ay produits alimentaires ñoom ñoo fa gënoon bari diggante 1933 ba 1935 la ñu taxawal marché Sandaga nee nañu nag ci benn garab gu mag la ñu ko daal di jëlee tur wi muy danga nga xamante ni jamono jooju moo doon marqué li nga xamante ne moom la ñuy wax digg muy centre ñu dem nag ba nga xamante ni bi dem na ba nga xamante ni si koy duppee li nga xam ne mooy marché Sandaga marché boobu nag nekkoon na marché secondaire boo xamante ni ni ñoo fa daan gën a bëri fay dugg mooy population bu Médina ñi nga xamante ni ñoo fi nekkoon ay tubaab jamono yooyu itam nekkoon fi nga xamante ni mooy quartier plateau ñoom itamit dañ daan ñëw fi nga xamante ni moom mooy marché Sandaga marché boobule bokk na ci marché yi gën a yàgg fi nga xamante ni moom moo di Sénégal suñu papa bi mi ngi ñuy wax ne 1973 bi mu ñëwee ci marché bi ñi mu fi fekk bariwul dara waaye jamono jooju amoon fi cantine nekkoon na lu jafe ndax marchandise moo daawul woon am. maa fi door a nag booba nag réew mi xam na jàmm neex na waaye booba marchandise bariwut nii mu bëree léegi booba marchandise ay ay benn benn fi mën am parce que sàll gi ma nekk booba marchandise sekk montre mën a am àll seen ay njaay mbay ñoom ak ku ñu sekk ak ñoom Bassirou Fall ñu néew daal mën a naan marchandise booba daal mag ñee ma a am marchandise waaye booba ñu bari mënuñu am marchandise ñi mag ñoo fekkoon itam fi ñu toll nii kenn dong laa fa xam na moo fi ne muy benn tukulóor ñi ngi am na ñuy dund nag waaye dañoo nekkatul si marché bi ñii seen kër ñii nga Touba ñii ña nga ay tailleur lañu woon ñu ngi fi bari nañu si faatu nag ba am na seen ñuy dund am na ñoo xam it ña nga ah, booba nag booba nag wax dëgg yàlla xatewuta nii ndax man 74 boo fi ñëw maa fi gone gu ndaw maa ko ñax Mandiaye Diop jarbaatu daam Badiane ñoo fi gone gu ndaw ak si tukulóor ba nekk fee ak daam Faal ki Basiru Faal ñëw fi gannaaw bi daaw rek saar mi ñëw fi ñoo fi loolu gënoon di nekk ay gone waaye rek 74 ma maa fi gone ma ak Mandiaye Diop képp képp xoolal léegi si gone ah booba nag marché bi am na jàmm am na kaaraange am na kiliftaan ndax boobu mag ñi ñi fi nekk lépp lu fi xew bu ñaari mag waxee rek du dem police di ah waaw dafa xumb rek mais nii la ma sa toll mais nag nit ñee yokku marché moom nii la ma sa toll waaye nag nit ñee yokku nit ñee yokku marché moom nii la ma sa mel nit ñi nag ñoo yokku ndax koo boo xoolee léegi li fi ne su na un million soixante-quatorze maa fi genn gone ak Mandiaye Diouf ak léegi saw xool ko léegi li fi ne mat na deux millions si ay gone gone yee bari yokku ah liggéey bi nag booba neexoon na waaye marchandise moo amul tool amul xuloo amul xeex ku am xew ñëppay dem ku feebar ñëpp lay seeti ku am déj wala ngénte ñëpp fay dem léegi nag jot moo amatul gone yi dañoo bari te jot amatul bon place ñi may ñi néew ko fi mu boo place bi li ko fi am li wër marché bi rek di ay Gumba Seen ñoom ay Alla Seen ñoom ay Aale Mbay ñoo ñu ay Ablaye Naar Samb ñoo ñoo fa amoon place rek ak ak waaye naar yi olof bu fi njëkk am place bi ci naar yi olof mooy Sidi Ndiaye Ngañ Caam na Jóob Alla Seen ñoo jëkk am si magasin si magasin yi ñu ne Mbay Badiane Mor Mati Sarr ak kebe kebe yi Ousmane Kebe ñoom jógee Kaolack ñëw fi ami magasin Serigne Gueye ñoom jógee Kaolack ñëw am fii magasin ba léegi magasin yi yëpp olof yee ko moom yëpp ak naxar yee ko moom waaye léegi yëpp olof yee ko moom booba man daan limal buut ba buut naxar bu nekk mën a diwoo mooman diwoo mooman waaye léegi nag olof yee moom yëpp nag wax dëgg yàlla nag léegi la gën a baax ndax léegi la ko Sénégal moom Sénégal yi moom marché bi libaana yi ñoo moom bitig yëpp bitig yi nga gis yëpp libaana yee ko moom waaye libaan yi dem di dem di dem jox olof yi dem jox la ba léegi olof yi moom lépp olof yi moom lépp waar fakat la baax lool baax yaatu am jàmm te liit moo gën ci Sénégal moo gën ci ñun jamono yi ñu génn ci ginnaaw rukk disket bokk ci biir marché Sandaga dafa amoon benn jéye ju fa am mu nekkoon nag loo xamante ni indi woon na jafe-jafe ak njaaxle ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ci marché ba ñu fàttali leen rek marché ba ay compartiment yu bari la am am na rukk disket am na yeneeni bërëb yoo xamante ni dafa am ay magasin comme ni mu amee ay centre commercial marché Sandaga mën na ñoo ni sëla bu yoon ci digg bi waaye ñeenti côté yëpp ñënd ak njaay dafa bari nag bokk na nga xamante ni moom moo gën a bari ci muy jaay ay mbirum jigéen waaye itam mu yombal ko ba mu yomb ndax góor góorgóorlu yi ñoo fa ëpp waaye nag li nga xamante ni nag magasin yooyu le lu toll si juróom jël na euh, safara maanaam lakk nekk na tiis woo xamante ni dal na ci seeni borom. waaw lii daal gis ko suñ toog ay ci la lii am yéen courant moo ko def waaw parce am na ñu dëkk fii mooy lébu yi dëkk fii daal. na am na xale bu fi romb daal gis ko muy tàkk naroon na gën a métti nii sax mais xam naa teel yëg bi ñu ko teel a yëg moo tax ñu juróomi kant ñeenti kant yi lakk. jàpp ne Senelec am na ci wàll wu rëy ndax branchement yi ñoom jàpp nañu ne ay problème la jàpp nañu tam fi nga xamante ni foofu lañu samp seenu njaay bokk na ci li gën a tax xëy na branchement yi mën leen a indil ay jafe-jafe ñoom jàpp nañu ni ba tey loolu bokk na ci li tax lakk gi daal di boo xool fotu Senelec la. parce que marché bu toll nii yaa ngi gis fii lu courant yi yi booy xool ci àdduna bi sax dafa bareetul foo ko gis léegi jël courant takkalante takkalante takkalante booy xool futu Senelec la parce que tey bu dara amee fii rek yàlla bu mu am jéyee bu xësee am rek mën ngaa lor ñu bëree baree bëri te loolu futu Senelec la tey booy xool fii lu toll ni ci 10 cantines ba nga yor benn compteur nga yor ventilateur bu mu dee day yor 4 làmp wala 3 lampes moo day metti ak fii nu nekk ci Sénégal gi nga xam ne day tàng xottu laa lii di cantine yoo xam ne seng la pour courant sauvé bi day yomb. li fa metti mooy amul benn autorité boo xamante ni ñëw nañ seet si leen ñoom sax ñu ngi wax ne massa bokk na ci li gën a tax li war a mën a tax sax xol naa ko sedd waaye dégguñu autorité te amul kenn koo xamante ni jóge na ci ministère bu yor wàllu commerce wala ci direction yi ñëw massawu leen ngir ñoom ñu xam ne ci njaboot gi la ñu bokk. mais ba léegi nii gis ñu kenn koo xam ne bokk ci nguur ku ñëw ku ñu masawu gis ñu kenn ku fi taxaw. nañu masa wala kër nangam sangam te rafet na ci parce nag mbaam gàtt na trop mais ci jur gi la bokk ci ci lañ bokk nu naa ah. ëllëg ñooy dem Chine ëllëg ñooy dem France ëllëg ñooy dem Italie yëpp suñuy continuer di ko jaarale ci port bi di fay suñu di douanement kon nañ ñu gees nañ ñu geesu quoi te yërëm ñu te xam ne ci réew mi lañ bokk dëgg yàlla mbaam gàtt na waaye ci jur gi lañ bokk lii rafetoon na tey ministre de commerce taxaw fi wu lu toll ni juróomi kanti ñëpp lakkale ba jeex ay millions am koo xam ne liquide femme bi nga jàkkaarloo malien la dëkkul ci réew mi 5 millions 500 la fi lakk les liquide bu fi toogoon te bu ne la woon xaalis bi nga gisal ko sa bopp te pourtant nee ñu ko masa te pourtant day fay patente chaque fin te mën nañ taxaw ñu ko nag soxna si ñi masa wala kërën kërën mais defuñu ko ñu ko toog croiser le bras naa marché ba daal lakk bu leen lay fa fañ nekk du yoon. est-ce que réew mi li fi di yoon tey bu ñu ko bëggul lijjanti du metti naam bu fekkente ni am na ci lu bëri lu ñu yaakaar ci nguur gi ñoom itam seen doole rek lañu yaakaar ngir mën a yóbbu li nga xamante ni rek mooy ay mbégte ci seen i kër looloo tax nag ñoom li nga xamante ni bëgg nañ ko mooy na leen nguur gi jàppale bu baax na leen nguur gi dimbali ndax njaay mënta ñàkk te ni ñuy jaayee ak foofee nga xam ne dañ koo occupé doon na loo xamante ni gënalu leen kon na leen nguur gestu ndax ci njaboot gi lañu bokk métti na métti trop parce que yor kër amoo fenn fooy lal fulul ci trottoir yi neexul ci borom kër mais nag ñuy góorgóorlu parce que marché bi nga gis nii mel woon nii tey am na yeneen di marché yoo xam ne ñu ko fi tàmbali di liggéey tey ni que marché Sandaga gi fi lakkoon te tojoon ko daane woon ko est-ce que yaa gis ñu ko commencé liggéey am na beneen centre commercial bu nekk ci côté bi beneen centre commercial la ngi nii nga jàkkaarloo muy centre commercial Djily Mbaye maire dakaar moo ko moom ñooñu bu ñu góor góorloo ba liggéey bee pare ñu mën a xool comme ñi nga xam ne ñu ngi ci mbedd bi ñu ci bëri nañu mën a dugg ci biir su ko rogee tali bi day daal di libre su ko rogee daanaka cantine weñ yu ci bëri day mën a dañ walla bu ko defee tali bi comme ni ñu accompagné nii dootoo ko gis mais métti na neexul ci xool moom franchement Dakar moom soxna si boo bëggee dëgg-dëgg ni mel métti na trop. dëgg la nag fi lañ dëkk ñun ñëpp ñuy daan suñ doole mais daan sa doole ba yàqal sa bopp noonu lor sa bopp jaru ko ne état jéem a góorgóorlu ci liggéey ay marché pour nit ñi mën cee dugg comme que am nit ñi amuñ leen luñ jàpp te mënoo xëy xëy nga ne nit ki doo dund mënul nekk jógal fii tey mën nañu xëy nañu ramas jógal leen fii mais nit ki boo ko jëlee foo ko jëmee jógal fii dugal fii la mais jógal fii moo war di taxawaal ban njëriñ la amul sens moo ma fi jëlee deux jours trois jours damay ñëwaat toogaat parce que yot nag ci dëkk bi laa dëkk yor doom yor soxna yor ndey yor baay di fay location kon doo mën a jëlee fi jóge fi ni rek tax ma taxaw di ma xool déedéet wutal foo ma dugal xam nga mën naa loolaa gis quoi nañu góorlu te geesu ndaw ñi te xam ne sonn nañu te yot nag wax dëgg yàlla mën ne moom en tant que ñi ñu jiite amuñu ko yàlla mënta yërëm réew mi te pour réew mi jóge fii ci lii mu nekk mooy il faut ñu yërmande jiitu ba pare sénégalais yi jàmbaar lañu kenn ku ne la nga nekk yaa ngi ci war a nekk gars yi ñu ngi ci géej gi gars yi ñu ngi ci menuisier bi gars yi ñu ngi ci menuisier métallique bi maçon bi marchand ambulant cak-cak lu ne gars yi ñu ngi ci wéef lu ne gars yi ñu ngi góorgóorlu wax dëgg yàlla lépp rek ngir bañ ku leen yem te ay jàmbaar lañu ah ne état gën a góorgóorlu te geesu nga xam ne réew mi ay gor fi nekk te yor ñi fi nekk bëgg nañu seen réew yàquñu ko ah waaw parce que waaw man xaw ma lu commerce fii ma taxaw ni tey maa fi doyen lu mu deeree def naa 30 ans Sandaga fii nga taxaw ni ba mu fii taxaw boobu marché bi yegsiwul fii boobu marché bi mu ngi yem fële ngeen jàkk fee ngeen romb ne sànq booy bi jaay kafe pala fóode fu mu taxaw foofu la Sandaga yemoon ñun fii lañ doon petit camp yi doon football fii amul dara lu fi nekkoon lu camp bi àdduna di dox di dox di dox ba lii di marché kon na état gën a góorgóorlu marchand ambulant mënta ñàkk cib dëkk waaye centre commercial yii la dey bokk na ci liy gën a tax xëy na ñu jàpp ni marchand ambulant bu amee itam ñoom dinañ ci gis seen bopp waaye la leen gën a jaaxal te gën leen a metti mooy centre commercial yi dafa mel ni borom doole yi rek ñoom ñoo koy moom. bu ñu xëyee ñu ngi ñëw lal si booru wàcc jotee ñu ngi des fois gars yi ñëw ne bon dee leen lalee nii dee leen defee nii xam nga pour ñu gën a tegu si yoon daal te loolu tamit bu ñu ko waxee pour suñu arrangement wu. dëkk la quoi loolu daal mooy si jafe-jafe yi des fois nag du arrangé ñëpp mais loolu daal laa si gis loo xam ne des fois daal bu ñëwee di ramasse wala affaire yooyu daal ñu xaw am problème mais mooy loolu daal lu mënu ñàkk la quoi. bañ a toog kër gi rek xam nga boo xëyee toog sa gaale defoo dara amoo fenn fooy dem amoo emploi boo xam ne mën nga si dem jàpp yow li nga xam mooy xëy dugg ci marché bi jënd sa bagage ñëw liggéey en plus nga toog dégg say papa wala say maam naan la man fii laa nekkoon depuis des années xam je me dis yow boo juddoo si loolu quoi doo doo fa doo fa gaaw a jóge daal tant que gisoo lu gën lool te Sénégal pour nga gis lu gën loolu tamit yombul daal moo tax xam nga tamit bon bu ñu fi jëlee tamit mu leer nañu bu ñu demee tamit amuñu si leneen lu ñuy jàpp amuñu si leneen lu ñuy mën a loo xam ne mën nañ si dugg pour gis suñu bopp mooy faral tamit bu ñu fi jëlee ñu dellu si parce que si nekk fii am nga kër ñi am nañ jabar ñi ay locataire lañ xam nga tamit boo toogee liggéeyoo rek ak Sénégal nu mu méttee loo am dépense waat ko dund bi seer xam mënoo bañ a toog daal doo toog daal foo jaar moom da ngay ñëwaat quoi. soo xoolee genre centre commercial yu mel nii nekk biir Dakar lu si ëpp soo xoolee boo quoi si benn côté maanaam même bu demee bay pare même bu demee ba pare sax borom alal yi war ñi nga xam ne ñoo yor xaalis yor fi ay ngan di magasin yor fi ay pile de cinq magasin wala six ñoom ñoo koy jëndaat joxaat ko seeni i wala ñoom ñoo koy jëndaat looyewaat ko nit ñi xam nga kon suñu genre gi pour ñu xëy ba amul connaissance dëgg wala koo xam ne maanaam euh, jege nag ñuy lijjanti affaire yi boo xam ne mën na la toppatool affaire yooyu dëgg-dëgg boo ko amul du am sens am même boo amoon benn moyen bu bi sax pour nga la jënd ko du yomb parce que ñi la ñi fi jiitu gën la fi yàgg am fi ay place yi place yi place yi ñoom ñoo la fay jiitu maanaam ñoom bindu nañ bu yàgg avant muy pare wala soo moytul tamit bu paree ñoom ñooy njëkk a jënd place yi ko defee ñun tamit duñu am sens bi te li ñuy wax rek ñëpp ñu am sens am place ñëpp mënuñu dugg ci ci ci place bi quoi. bon li may wax nguur gi pour jeexal mooy que bon lii moom lii mënul denc si dëkk dëkk boo dem am na fa quoi te ñun lii nii si lañ yaakaar muy man ak ñeneen ñu ñëwagul ñoo xam ne tey ëllëg ñu ngi si bëgg a dugg am na ñoo xam ne tey da ngay toog sa ko ñaala man de lan laa war a def la laa war a liggéey xam nga bàyyi man dëkk bi nii dëkk bi naa nga ah ñëwal marché marché am na dara mu ñëw fi gis boppam di xëy di liggéey si chaque jour muy ñëw am commencé denc xam nga xalaat ne ah man kay war naa mën a investir lii war naa mën a def lii xam nga kon ça veut dire que li ñuy gi mooy que ñoom ñoo ñu mën jàppale dawal compréhension xam ne lii mënul denc si dëkk bi da yàgg rek bu yow dëgg yàlla bu demee bay day it bon Sénégal mooy gën a torox rek quoi jeunesse bi mooy gën a torox parce que bon commerce moom ñëpp si xaj commerce ñëpp si xaj te commerce ko ñu am place daal loolu la quoi commerce ñëpp ñun fi jógoon rek ko ñoom ñoom ñoom lu la gënal da ngay dem toog fa jaay quoi kon ça ñu mën a jàppale quoi jéem a xool ñu koy encadré tegu ci daal. marché Sandaga itam bu leen fàtte ni yàgg na lool libanais yi bokkoon nañu ci ñi gënoon a bëri ay magasin mais léegi sénégalais yi magasin yu bëri ñoom i tamit am nañ ko fa ndax boo jëlee ci avenue bi tàmbali ba jeexal fi nga xamante ni mooy rond point bi ni foofu itam commerce yu ci bëri sénégalais teg nañ ci loxo lu ci mënti am rek nguur la woo ak mairie bi waaye tamit woo ñi nga xamante ni jàpp nañu ne xëy na dinañu leen mën a jàppale ba marché bi ñoom ñu mëntee gis seen bopp te duñu lool kenn